daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 ci transfer market la ñuy ñëw ak li nga xamante ne mooy top 50 joueurs yi nga xamante ne ñoo gën a seer jamono yi ci football bi ci àdduna bi mooy juróom fukk ci ne ñoom la seen njëg gën a seer jamono ci àdduna bi ki nga xamante ne mooy Sadio Mané l'international sénégalais bi ci la bokk moom sax mu nekk li nga xamante ne mooy troisième maanaam ñetti joueurs yi gën a seer ci football bi ci àdduna bi bu ñu koy xayma jamono yi Sadio Mané ci la bokk ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé moo nekk ci bopp classement bi moom njëgam ñu ngi koy xayma ci 162 millions de livres sterling muy xaalisu Angleterre muy xaalis boo xamante ni ñu koy wax pound moo gën a cher li nga xamante ni mooy euro maanaam moo ko ëpp doole. Neymar nekk ci deuxième place bi ak 115 millions de livres sterling Sadio Mané moom mu ngi ci 108 millions de livres sterling maanaam téeméer bu tomm juróom-ñett ci ay millions ci xaalisu Angleterre jamono yi moom la njëgam di toll ci jamono yi. Mohamed Salah soo ko ñëw ci ginnaawam ak Harry Kane Erling Haaland Kevin De Bruyne ak ki nga xamante ni mooy Arnold ak ñeneen ak ñeneen ki nga xamante ni sax moom la ñuy wax Lionel Messi moom jamono yi mu ngi ci vingt deuxième place bi maanaam moom xaw na sori jamono yi mu ngi ci vingt deuxième place bi moom Lionel Messi ndax kat mbir yi ni ñu ko xayma daf ci as bi daf ciy joué Cristiano Ronaldo sax moom bokkul ci jamono yi ndax asam moo eeg loolu Lionel Messi mu ngi ci 34 ans Cristiano Ronaldo moom mu ngi ci 36 kon moom njëgam eggul ci li nga xamante ne mooy top cinquante bi. Cristiano kan moo ko doon jaay jamono yi ana kan moo ko ñemee jëndee xaalis bu bari kenn xalaatu ko ndax kat as bi dem na anytime mën na retire wala mu am ay blessures yi nga xamante ne mën na ko gàllankoor li bokk na ci li nga xamante ni gars yi bu ñuy xayma dañ ko ciy sóoraale moo tax Lionel Messi njegam wàcc ba mu nekk ci 22e bi Sadio Mané nag comme xale la moom mu ngi bokk na ci joueurs yi nga xamante ne ñu ngi euh, def ay jaloore foofu la ca tugal moo tax njegam jamono yi bokk ci. ñi nga xamante ni ñoo gën a seer Kylian Mbappé itam performance yi nga xamante ne mu ngi koy amal foofu la ci Europe waaye âge bi tam def ci joué ak ki nga xamante ne mooy Neymar lii daal mooy li nga xamante ne mooy li gën a am solo ndax cinquante yi cinquante jours lañ xaw a bari buñ ko bëggee lim xañ na dina gudd torop voilà li ci ëpp solo mooy Sadio Mané moo nekk bokk na ci ñetti jours yi gën a seer jamono yi ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci transfer market bi ki nga xamante ne mooy Ousseynou Ba moom dafa daal di egg seen contrat am ak club bi nga xamante ni mooy Olympiakos nekk foofu la ca Grèce di international sénégalais di Ousseynou Ba moom nag euh, daal dina ko yokk ba maanaam ñetti at ci kanam ki nga xamante ni mooy Ousseynou Ba wala ñeent at war na ko def ci club boobule di Olympiakos atum 2019 la demoon foofu jóge fi nga xamante mooy ca Gasale Ajaccio nekk ci nekkoon ci Ligue 2 bu France moom Ousseynou Ba jamono yi mu war a toog foofu la ca Olympiakos xanaa xaalis jëlee ko fa waaye daal contrat bi jamono yi daal dinañu koy tàllal xëcc ko ba 2024 Ismaïla Sarr moom agent bii di Thierno Seydi fan yi wax na ci li nga xamante ne mooy li gàllankooroon transfert am ba demul fële nga ne mooy ci Liverpool mu ngi xam ne ne de mbir mi lépp sotti na maanaam ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr ci eh, li nga xamante mooy transfert yi nga xamante ne moom la ñu weesu jàppandi woon na moos mu dem foofu la ci Liverpool ndax doxoon nañ lépp ba mu sotti déggoo woon nañ ci li nga xamante ne mooy contrat bi ana naka lay toll ana ñaata lañ ko war a fay ci salaire maanaam foofu la ci Liverpool lépp daal jàppandi woon na lenn rek moo gàllankoor mbir yi nee na sax demoon nañ ba nga xamante ni moom Thierno di waxoon na kii di Sadio Mané mu utal ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr ab appartement wala boo kër goo xamante ni fa la war a dëkk bu jógee foofu nga xamante ne mooy ci Watford dem ca Liverpool lépp daal jàppandi woon na ba nga xamante ni signé rek moo desoon waaye daal li gàllankoor mbir yi mooy 40 millions d'euros yi nga xamante ne Liverpool waroon na koo fay ci club bi nga xamante ne mooy Watford ñu war a bàyyi seen attaquant Ismaïla Sarr toll ci 22 ans lii daal moo gàllankoor mbir yi ci mujj ga ba mbiri signature boobule mujjul xew kon Ismaïla Sarr daanaka demoon na foofu foofule ca Liverpool buñ sukkandikoo ci agent bi nga xamante ne mooy Thiano Seydi équipe nationale bu Sénégal U17 yi maanaam xale yi nga xamante ne dañoo am fukki at ak juróom-ñaar jëm suuf te jamono yi ñuy joué ci li nga xamante ne mooy tournoi UFOA zone A bi war a bi nga xamante ne mu ngi daw jamono yi bokk ci Sénégal dal danañuy qualifié ci final yi gannaaw bi ñu dóoree Guinée Bissau ci demi final bi dóor ko dóor yi metti 4-0 lañ ko daal di dóor ñu gis ne Guinée Youssouf Daabo yi kat seen yaram dafa tàng ndax depuis tournoi bi tàmbali ba fii ñuy waxee képp ko ñu téye duñu lay yërëm dañu lay dóor ba tëral la Guinée Bissau mujjul ci dóor yooyu la ndax senegal dañu ko daal di dóor 4-0 Sénégal moo dóor Guinée Bissau 4-0 di qualifié ci finale beneen demi finale bi doxoon diggante Mali ak Mauritanie Mali moo dóor Mauritanie 5 bis ñu xam affiche finale bi jamono yi war a dox diggante Mali ak Sénégal ci dimanche ji lay doon le 13 février bi ci stade joor bu Thiès diggante Mali ak Sénégal bu 16h jotee. ki nga xamante ne mooy Jules Koundé nekk foofu la ca FC nekk défenseur central bu FC Séville jamono yi kayiti xibaar yaa ngi fësal ne Real Madrid Paris saint ak ak Manchester City yépp jamono yi dal dinañu koy songu di ko xëccoo ci soma bi ñu man maanaam transfert yi nga xamante ni war na ñëw ci kanam fi léegi ay weer ci kanam jamono ñetti club yëpp ñu ngi xëccoo xëccoo bu metti ngir war a man a am ki nga xamante ne mooy Jules Koundé nekk foofu la ci FC Séville jamono yi nag njëgam kayiti xibaar yi fesal nañu ne buñ koy xeema dina toll ci 80 millions d'euros wala lool sax mooy clause bi release clause am buñ koy xeema toll na ci li nga xamante ne mooy 80 millions d'euros Real Madrid Paris Saint-Germain ak yi ñoo ko bëgg moom kii di Jules Koundé am na ku doon laajte lu jëm ci ki nga xamante ni mooy euh, joueur Manchester United bii ñu jënd bu yàggut muy Ama Traoré Ama Traoré jamono yi mu ngi joué ci U23 bu Manchester United xam naa nag ñu bëri namoon nañu koo gis ak équipe bi di Manchester United waaye mu ngi évolué ak U23 bi di ne tam ak équipe première bu Manchester United kon anytime mën nañu gis ki nga xamante ne mooy Ama Ama Traoré Ama Traoré moom jeune Ivoirien boobu le ci équipe boobu nga xamante ne mooy Manchester United.